ngeen jot a jot moo leen vidéo mën a yi internet yi di leen fàttaliwaat bu baax a baax cloche bi bu koy fàtte de bés leen rek ngeen abonné am ci euh, vidéo yi jot information yi beneen ci information ak de la semaine. Euh, bi nga xam te ni dégg nañ ko barki dem di aji Sarr Adji Raby Sarr ak Diène man dama naan génnam boobu moom mënoon naa ñàkk parce que fa mu waree génn la génnut coow li ne coo bay génnut ba moment bi bu génn pour man sax son avocat a violer le secret de l'instruction parce que mënuñu tey jii Ousmane Sonko ñu ne ko vous su sous contrôle judiciaire on vous a interdit de parler de de ce dossier ek ki mu ko séqal il est aussi, elle est toujours euh, donc, entre les de la justice. Euh, son, euh, son dossier est pendant de, devant la justice. Son avocat di ko permettre muy entretenir benn interview ci benn chaine bu doon lu mu bëgg sax lu leer la ci bëgg pour ko mu woo invité média bi yëpp tànn sa organe boobu neex ñu toog tiim la ñu bindal la ngay wax di lire. moo tax sax tey jii nit ñi di ci wax ñi naan bu doon sketch la wala pièce théâtre am nañu jàpp ne mise en scène bi juum nañ te mise en scène bi metteur en scène bi ah, Maître El Hadji Diouf lañ ko jàpp ne moom moom lañ ko jàpp ne moom te moom la ñu gis ci image moom bu muusoon sax en tant qu'avocat day effacé wu du ci génn c'est-à-dire que gis nga man dama jàpp ne dañu bëgg fontoo te bu ñu yeb parce que mënumaa jàpp ne réew moo xamante ni wax dëgg yàlla gis nañ li ñu dund ci événement te dara waruñu ko lu du moom Adji Sarr mii moo taa bëggoon a taa dëkk bi coowam loolu noonu parce que moom laay dem parce que moom en tant que jigéen te man dama yërëm Adji Sarr parce que dama jàpp ne mbir mi moom dafa am ñu làqu ci ginnaawam jël nañ ko en otage te quelque ku ku war a jàppale la ku jar a dimbali la maintenant tolluñ ci réew toll ci réew moo xamante ne macha allah suñu kilifa diine yi ñu ngi fi ñu ngi fi ñu ngi fi wax ba jàmm am ba président Macky Sall yëkkati kàddu diglu leen déggal leen ku ci mel ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na fi yàgg lool te wér déggoon nañ sëñ Mahi Niass Medina Baye kilifa yëpp génn gis émissaires yi ñu yónni woon gis seen taxawaay wax dëgg fa yàlla. ñu foon ne yeeg góom baa ngi yor ñu bëgg ñoo xolli góom bi gis nga bu ñu fontoo bu ñu yeb suñu réew mi kenn duñ ko taalal kenn duñ ko yàqal stabilité lañ fi soxla stabilité lañ fi soxla yow nag Maître El Hadji wax dëgg yàlla naw nañ sa xam-xam lool sa tolluwaay ak sa daraja wante nag mbir mii da ngeen cee war nag am nu ngeen ci doxalee bu dee mbirum yoon la dem leen ba ca buntu tribunal comme l'affaire et déjà pendante devant la justice le juge Samba Sall euh, doyen des juges est là-bas am ngeen kee ngi sous compte judiciaire ki tamit mi même chose fexe leen ba devant l' fi ñu koy xaare mooy devant la bar qu'il vienne avec ses preuves pour quand même mener bien sa défense loolu lañ koy xaar et porter sa robe pour mener sa défense maintenant du ci média yi wala ci leneen nga parce que xam nañ ne lu jàll ci canal ci wax nii gars yi ça peut amener bu yeneen risque loolu lañ soxlu ci réew mi man damaa jàpp ne bu fekkee da ngeen a bëgg fitna dañ ko yemale seen bopp waaye réew mi bu leen ñu ko taalal moom Me El Hadji déggoon nañu fu mu ne euh, médiation kilifa diine bi ñu koy xaar Sénégal ñaata yoon la fi kilifa diine def saafara ay ay jafe ay ay ay mbir mu naan waruñ cee kii bu dee wàllum yoon la yaa ngi naan bu dee wàllum yoon wàllum yoon la bu dee wàllum yoon waaye yoon nañ ko liggéey lu tax solo sa robe bi nga dem ba ca tribunal ba nga taxaw fa ak say preuve défendre li ngay défendre moom Ousmane Sonko tamit même chose ngeen dem devant la barre la justice faire mais bu leen ñu sonal bu leen ñu indil fitna ci réew mii réew mi ne ku ko bëgg a taal barke Seydina Mohamed Cheikhul Khadim laa lay giñal ku ko bëgg taal tàkk réew mii Sénégal gi ku ko bëgg a taal billaahi wallahi yaay tàkk waaye li nga fi bëgg ay Rwanda ak ay nangam ay Sénégal ak ay fii kenn du fi dee ay ku ko fi bëgg a rey yaay dee bu leen taal suñu réew mi ñu ngi ni dalal di taal taalub fayub sebbu yow nga indi sa sa wantaay fa la kii indi boolub xalam di bëgg a boyalaat bu leen ñu sonal may la ñu jàmm Sénégal dañoo soxla yeneen question yu waxtaanee wàllum ndox maa ngi di ñàkk nit ñaa ba tey di root yi ndox si depuis indépendance ba tey ñu war a régler loolu njàngum xale yaa ngi ñu bëri ba jàng ñiy jaar géej gi di dem ah yeneen jafe-jafe nekk fi ñu war a régler question yooyu santé wér-gu-yaram nit ñi bëgg a faju wér ak yeneen ak yeneen ñuy rey ak ay maçon ma bësoon na ko bësu koog newoon na fee lay tëdd ak tëddu ne bu la ñu tànqal ak ay tëdd loolu c'est ça n'a rien voir dimbali la ñu ngir yàlla réew mi soxla tal nañ leneen gumba tal na leneen lu tëbi pax ngir laay war a sóoli Maître El seen dossier yii yaa ngi say preuve Ousmane Sonko maa huit avocat poulam dem leen ca kanamu juge doyen Samba Sall ngeen jébbal seen i preuve ngeen dem li ngeen di waxtaan mu jeex Sénégal ngeen bàyyi leen ñu nekk seen jàmm muñ nag homme politique motuñ un tiers de la population bëgg a otage sénégalais jël leen mënul nekk c'est impossible te duñ ko nangu c'est impossible mënul nekk il faut que ngeen mañ bañ ñoo sonal vraiment lii moom wax dëgg yàlla ñun génnam bi moom génnam bi safuñu géej safuñu xorom safuñu yéet du yàpp du géej du yéet amuñu benn importance. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biir réew ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot ngir mën a xam li nga xam